Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk internet Setsima TV ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay waaye tamit di leen dalal ci gàmm gi nga xam ne moom moo ñu fi indi fii ci Kaolack di di jëmm ju sell jooju di Maulana Cheikh al Islam Mame Baye Niass moom bërëb bi nga xam ne tey foo sànni mbàttu mu tàq mais ci biir loolu nag dañoo seet si tradipraticien bu mag koo xam ne moom métti kenn dootu ko naatam la ci. mim réew ci mën fajam waaye tamit ci miracle yi nga xam ne mu ngi koy def fii ci biir na baay ba ñëpp di ko coow kooku nag mooy kan moom nag lañ tuddee la solution ndax dégg naa foo amee njàkkare wala tamit fu la problème dikkalee rek boo ñëwee seet ko sa aaji dina faju sa njàkkare dina faju ñu ne déddewaay moom it nee na bàyyil benn faj ci loolu nag dinañ ko gën a yaatal ndax dafa dem ba tuddee boppam docteur ndax docteur daal mooy maanaam képp koo xam ne mooy faj lépp moom nag dinañ gën a yaatal waxtaan ak moom ki ñu dalal nag junior du kenn kuddul docteur Assane Thiam nekk fii nag ci Medina Baye Niass docteur Assane Thiam ñu ngi lay nuyu. waaw marhaba euh, salaamaaleykum wa rahmatullah waa Setsima TV maa ngi leen di dalal fii ci suma kër Kaolack Medina Cheikh Ibrahim Niass. di leen dalal beneen yoon ci gàmm gi nga xamante ni moo leen jëlee Dakar ba fii di leen wax ne ahlan wa sahlan wa marhaba di ko wa di ndokkeel ñëpp di ndokkeel suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ndax moom moo ne xan yaan li Ibrahima laa <clears throat> ilaalu ilaalun badali moom moo njëkk ndokkeel boppam ci weer wi kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax di ñaanal xalifaam Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass Euh, di ndokkeel cheikh Mouhamadul Amin borom gàmm gi di ndokkeel euh, al imaamul akbar cheikh Ahmad Tidiane ibnu Seyda Alioune Cissé ak porte parole cheikh Mouhamadul Maay Cissé di leen ñaanal yàlla tawfiix ak taysir ak najaaha di ñaanal képp ku gàmm si yàlla nag ñëw ci jàmm gàmm ci jàmm dellu ci jàmm yóbbaale yiw moo xamante ni at yëpp xaj nañ ci ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi ndax moom mooy ku sakan ki moom mooy ki nga xamante ni lépp lu yàlla bind moom moo tax yàlla lim amoon yëpp joxe na ko kan la ko jox yonent yàlla moom sallallahu alayhi kon kooku moom guddi gi moom bis bi moo tax lépp lu fi waaye ñaan incha allahu rabbi ci kattanam ci yërmaaneem ci dooleem incha allah yàlla dina ko nanga incha allah rabbi na bu ñu ngi leen wax dal leen jàmm ci seen kër bisimilah marhaban waaw ci biir loolu comme ni ma ko temps en temps mais rek nee naa la yaa ngi def miracle fii ci biir Medina Baye kenn dootu la naa temlet léegi boo doon présenté sa bopp lan ngay wax kan mooy docteur Assane Thiam. waaw docteur Assane Cissé Thiam <clears throat> benn ndaw la benn jàmm yàlla bu xeebu koo xamante ne nii dafa jug pour dimbalee jàmm yàlla yi te yàlla rek tax. ndax yooyu bi dafa wax xaddis ci xaddis wér ne man lam tam bil amri muslimina fa laysa minhum jullit bi xam ne moo gën moo ki nga xam nañ sa loxo mucc sa làmmiñ waaye man sama gis-gis bu gàtt dama ne loolu doyut fexe ba ñëpp jariñu ci sa làmmiñ jariñu ci sa loxo boobaa doo loor kenn man loolu laa bëgg a taxawee ci ci mbindeef yàlla ak ci jaamu yàlla moo tax ñu jàng bu suñ moroom uti métier utiwuñ ko xam-xam lañ uti mooy suñu métier pour bëgg cee dimbale jaamu yàlla yi te jëmm yàlla yi rek tax waaw looloo waral ñu gës ci xam-xam tukki nañ ci fu ne dem nañ fu ne Afrique gu ñuul gi fu ne dem nañ fa di sàkku xam-xam rek ngir bëgg a taxawu jaamu yàlla jaamu yàlla yi ci ci ci ci ci xaalam bi daal loolu moo waral loolu. Mm-hmm. Uh, ci biir loolu en tant que docteur mën nañu xam exactement uh, docteur Assane Cissé Thiam lan lay faj. waaw xam nga li may faj bëri na. ndax li may fay yëpp mi ngi dellu ci alxuraan ndax yàlla moo wax ci téeram bu tedd bi ne lépp lépp lu ne ci kaw suuf lépp lu ne ci xaalam bi rek mu ngi ci alxuraan alxuraan amul dara dara dara lu mbaay nga xam ko wala nga ñàkk koo xam képp ku ko xam nag bépp jafe-jafe bu nit am boo ñëwee mën nañ la cee taxaw dimbale la ci ba sa mbir saafaraw te yàlla rek tax gannaaw lu jiitu loolu dama am ndigal ndax lépp ci ndigal la commencé dafa am benn góor yàlla bu baax bu ñuy wax alxaaji Abdou Ndaw ci Taïba Niassène moo ma jàngal wax dëgg yàlla am góor góorgóorlu naa sama kéem te laay kàttan pour xin ma ko ndax xamoon naa dayo bi mu am bi ma jàngalee ba pare ma ñëw bëgg def sama yëf mu ne ma bul yëkkati dara te joxuma la ndigal ma bàyyi noonu dem continuer di jàng feneen am loo xam ne dama ko doon laaj benn siru boo xam ni daf ko yoroon mi ngi nekk ci diggante jigéen goo xamante ni dafa taw am doom mhm. li muy lam li siru bi li na mhm. mais boobu moomu ci gën teel jigéen boo xam ne dafa taxaw mënta am doom bi ma ko laajee mu ne waaw naa la ko jox ma ñëw fii lan ma ñëw pour dem gàmmu Taïba mhm. ba ñu suba ma gàmmu ba ma ñëw julli fajar dem jumaa julli fajar bu mu ñëw bi sama kër laa fekk siru boobu sama kaw laal ñu ngi ko ci teg ma xam ne ndigal li mën na dëxal ba man na bi ma xëyee lañ ma oon ne ma tàgg nañ ko ne gaañu na te newoon na ma ne bul laal dara en tant que maa ngi ci kaw suuf di dund bul yëkkati dara moo taxoon ma bàyyi lépp te xam naa ne waxi wàllu yàlla te yàlla moom moo wàllu mi ay xarit lañ waaw bi ma ñëwee gis kayit boobu ci kaw gis xaatim gis yëpp ma xam ne lii daal dëxal bi mën na maanaam daal ci gàttal lépp ngay faj lépp góor goo xam ne tey dafa nekk ak jabaram daal di tële est-ce que Serigne Assane Cissé Thiam mën na ci dara. incha allah incha allah loolu moom loolu moom loolu moom maa ngi lay garantir benn mbir. képp ku dem ci Serigne. ngeen jëflante fukki fan ak juróom yu mat. Hmm. gisoo ci moom dara dara dara. wan ko ginnaaw te xam ne kii du Serigne day caaxaan rek. maanaam ngóore daal mën nga ko. waaw allahu rabbi yàlla yàlla yàlla xaalam bi juróom-ñaari fan la ko bind. Hmm. juróom-ñaari fan. te yàlla lépp lu mu yor jox na ko yonent yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam te ñi nga xam ne ñoo borom xam-xam ñoo doon yonent yi kon doomu aadama bu ne mën na faj mbir nga ànd ak moom fukki fan ak juróom wala weer gi soo ci moom dara wala ko ginnaaw dem te xam ne kii du sëriñ day jaaxal yàlla ci xifi lay def li muy def léegi ñan ngay wax ban message ngay wax ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi soxla seeni jabar te mënuñu ci ñoom dara waaw nañ ma seet si incha allah nañ ma seet si ku mu ci seet bu soobee yàlla yonent bi danga gërëm sa soxna dina la gërëm. képp ku daal jamono ji mën na ma seeti da nga ma gërëm sa soxna dina ma gërëm. incha allah ci kàttanu yàlla incha allah lii noonu maa ko wax te ragaluma ci dara. Hmm. incha allah rabbi amul kenn ku ma ci mës a jëflanteel nga ñëw na ma la nga wax ne gisuma ci dara. Hmm. jëflante nag ñi ñoo xam ne ñu ngi ba Europe lu ne defal lañ ma ko lu ne lañ ma yónnee damay toog rek ñu yónnee loo xamante ni man laaju ma leen ko sax. Hmm. ma toog ay fan xool sama téléphone di ko ci gis ndax man des fois mën naa toog. journée bi yëpp du ma ko noté ndax liggéey bi may nekk xam nga liggéey bi ak yooyu daanaka àndul waaye guddi gi laay toore gis ne ñi ngi may yónnee yoo xamante nii wax dëgg yàlla am seen mbaax ak yaakaar ñu amoon ci man gis ko moom moo waral loolu rek mm-hmm. ah, buñ jógee ci loolu ñu ñëw ci soxna yi nga xam ne ñoom métti ñu ngi sëy te mënuñu am doom mm-hmm. maanaam ñu daal di taxawal mm-hmm. est que euh, Serigne Assane Cissé aay na ci jigéen ñooñu nga xam ne sëy nañu te mënuñu am doom incha allah sir boobu ma lay wax nii sirru bu ma tàggee sama sëriñ bi. sirru bi loolu loolu moo sawoon sirru bi ci loolu laa ci loolu laa doon ut ci moom. mu ne ma demal bul wax dara bul def dara en tant que maa ci kaw suuf bul yëngal dara bés bu ma demee ba julli ji fajar mel na ba ñibbi sama kër gi sirru bi sama kaw lal laa xam ne dëxal bi man na ci bëccëg la ñu oo tàgge ma ko. fekk na yëpp daal ku mënatu am doom bu ñëwee. yëpp bindal nañ ma ko teg incha allah rabi ku ma jëflanteeg bu soobee yàlla ak jëmmi yonent bi incha allahu rabbi doo tag weer te yëgoo dara ci sa yaram incha allah. tey ñu ne seen milieu bi dafa xaw a dangereux ndax dafa bari ay arnaqueur yow nga nekk tradipraticien bu mag fii biir Medina. Mm. ñëpp xam la ñu bëri tamit yittewoo la ñi nga xam ne nag ñoo nekk di arnaquer di nax sénégalais yi ba tax ñemeetuñu tradipraticien loo leen di wax. waaw loolu li ci njëkk mooy man ñu bëri ñu ngi may ay doo ñëw Dakar doo ñëw Dakar man la lu may def Dakar man li ma yor wér na fii laay toog ñu fekk si ma fi. dégg ma fen fii laay toog te loolu dama ci bëggoon a wax ak état ndax état moo jaboote ñëpp yàq bi bëri na fomm yi bëri na caaxaan yi ëpp na wax dëgg yàlla état war na jël mesure ferme ferme kuy oote ne mën nga li ngay def nañ la jël tëj la fenn li na man nga ko bu ñu gisee problème ñu xam ne dëgg la bu ñu ko gisul ñu jël la sànni la fële wala ñu alamaan la wala ñu jël la tëj la ci kaso gi bu ñu ko defoon rek léegi fenkat yëpp jugee mais ba ngay gis benn waay bu toog fële jógee fële dem nekk mécanicien jógee ci mécanicien bi doxul nga dem kaalawu toog rek nit ñi ñëw nga leen jox ay ren yoo xam ne baaxul sunguf yoo xam ne baaxul genn wàll gi ñii góor ñu bëri seen tële yenn sëriñ si ñoo leen ko yóbbee ndax ñi ngi leen jox loo xamante ni maitrise wuñ ko xamuñ ci dara hmm. waaw donc nag kooku nag moom kooku boo ko joxee sa bopp yaa sànq sa bopp te lan ngay wax ñoom kunkangeek consort boobu nga xam ne dañuy jékki-jékki def ay magie noire di wane ne daal ñoom ñoo fi nekk tey docteur bu jàkkaarloog ñoom lan lay wax ñooñu. wallahi lazim duñ dara. kunkange du dara. barke yonentu yàlla Muhammad duñ dara. billahi lazi laa ilaaha illa huwa la waatal duñ dara. xaas nag du dara. duñ dara bala nga xam duñ dara billahi man li ma bëgg rek mooy gouvernement Sénégal nañ ñu may benn affaire nañ ñu tëj ñun sëriñ si ci benn néeg. ku ne wane sa ku nekk wane sa bopp. waaw loolu bu ko Macky Sall defoon billaay wallaay talaay rek wàccoon ak sénégalais yi parce que yàq bi dafa ëpp. yàq bi dafa ëpp di trop gauche droite ku xamul dara ñëw wax ku xam dara ñëw wax dafa dem ba yàgg doo xamee kuy wax dëgg ak kiy fen hmm. te loolu loolu dafa war a jóge à part faj yi nga xam ne yaa ngi koy def est-ce que Serigne Assane Cissé Thiam dafay seet maanaam. lépp lañu def dañuy seet kay. Hmm. dañuy seet bu baax. nit mën na nekk ba fu mu nekk. Hmm. bu dee Europe la nekk sax ñun dañu toog fii di la seetal. Hmm. ndax li yor mbir yàlla. mbir yàlla moom amul dëkk ak amul réew amul amul ci dara boo ñu joxee sa tur sa sant sa tur yaay incha allahu rabbi weer mi laa la may ma wax la lu mel ni midi incha allah. est ce que mën nañoo xam ba xam Serigne Assane Cissé dafay faj rab. waaw bu baax sax. bu baax a baax a baax. nooy fajee rab bu baax a baax a baax baax. waaw loolu nag loolu nag lenn laa bëggoon ngeen ñëw fii waxtu boo xamante day fekk ñoom ñu ñëw. nga di faj. nga gis indi sa caméra nga xool baax li ma lay wax. ni ngay fajee rab yi. waaw waaw. amul dara lu ma la ci nëbbu. ndax yàlla rek moo tax may wax. boobaa doy faj nit ba mu yàgg sax mu jékki-jékki daanu ndax rab yi. loolu day am loolu day am. nga yëkkatiwaat ko. day am ci lu bëri ndaxte ñun ñi sax ñun loolu daf ñuy dal. ndax souvent nga ànd ak benn jigéen boo xam ne day leen ne kii nii ay rab kese la waaye bu ngeen jëflante lu yàgg da ngay xam ne kii dafa yor ay rab te gannaaw yow yaa ngi yaa ngi jëflante yaa yaa ngi dimbale yàlla ci ñooñu rawatina ki nga xam te ne yàlla daf la booleeg moom képp ku yàlla booleeg incha allah rabbi boo yoree rab soobu yàlla yonti bi boo ñëw bu la jàppoo boo dem yaa doxal sa bopp incha allah ci kàttanu yàlla mais dañ lay gis tout le temps bu ñu lay gis bant bi moom ngay faral di gàddu ñu bëgg a xam na barke bi ci la bant bi ci la miracle nekk wala euh, li nga xam ne moom la sëñ Assane yor daal moom moom moom la àndal. waaw lii nag mi lii moom mbóot la. mbóot la. Hmm. lii bu ma la waxee ñaata at la doo gëm. Hmm. lii man moo mag. Hmm. paa bi ma lay wax nii ni moo dëkkoon tamit seen paa boobu. moo ko yor ko woon. bi mu ñëwee sama kaw lal fekk naa ci lii. macha allah. te am na luñ ci bind sax man maa ko ndax secret la nekk nu ñëpp ko a xam. Hmm. waaw lii moom lii moom <laughs> lii bant bi daal mi ngi nii li ci laxasu dafa bari nag du lépp lañ mën a wax waaye mbóot la mënoo ko wax ci média wala mënoo ko wax fu ay nit nekk boo wéeteeg nit am soxla yu la wax. soobee yàlla yonti bi tey ñi nga xam ne ñu ngi toog amoon njàkkare doon wër tradipraticien bu baax bëgg la seet si na nga fajal leen seen aajo tey ban numéro téléphone nga leen di jox ñu war la ko mën a jotee bu boobaa. waaw sama numéro moom mooy 77 012 11 11 beneen bi tamit 77 266 48 11. bantuwaat ko. waaw 77 012 11 11 77. 266 48 11. bu soobee yàlla ak yonentam du jëflante benn mbindeef lu ëpp fukki fan ak juróom. bu jógee ci loolu nag gis nañ ni yemoo ci faj mi rek mm. da nga continuer di dimbali ci doomu aadama yi ci beneen fànn mm. fànn boobu mooy maanaam di def ay social mm. gàmmu gi dégg naa semaine yaa ngi rey ay nag di daaneel di togg di jox jàmm yàlla yéeg ñi nga xam ne ñoo jóge partout ñëw nag ci gàmmu si nga leen di teral benn yooyu ngay faral di def chaque jour lan moo la dugal ci social ñun ñun ñun loolu lañ xam ñun loolu lañ xam suñu kër këru daal la loolu lañ xam joxe ñam lañ xam te fi ñu yaroo daara imam Hassan Cissé boo fa heure boo fi ñëwee nga fa mën a xew la mënoo yaroo ci loolu pare walbatiku nekk beneen nit di tëjoo ko di Cissé ko yooyu mënta nekk ci ñun loolu dafa loolu loolu bañ juddoo la ko yàlla dina ci ñun loolu nekku ci ñun ñun li ñu xam mooy dimbale jàmm yàlla te yàlla rek tax laa laazim li fi ñëw période gàmm nag doo xam doo xam kuy ut soxla doo xam ki ñëw pour wax am doo xam kuy ñëw pour gàmm si waaye bu duloon loolu da nga fekk ay nit ñoo xamante nii wax dëgg yàlla seen soxla rek moo leen fi indi te luñ ci mën ñu ngi ko ci def suñ bundam tëjuluñ ko kenn jaamu yàlla bu ñëw lépp luñ mën lépp luñ am danañ la ko jox si yàlla tax luñ amul dañ naa la amuñ ko ndax joxuñ suñu bopp yàlla moo joxe social bi dafa am ñu leen ci jàppale wala sa moyen bopp la. ngay déedéet kenn jàppale wu ma ci. Hmm. Hmm. yàlla rek moo ma ci jàppale. Hmm. ah ndax lépp lu ma yor lu ne si yàlla dëgg yàlla amul benn benn nit bu jàppale te xaaruma ci kenn li yor yëpp si yàlla lay ku jaakaar ne yaa may jàppale teel sa poos terrorisme bi day dem incha allah rabbi. d' accord ah, lan ngay tàggatoo nag mbokk internet yi Setsima TV yi nga xam ne ñu ngi doon jàkkaarloog yow. waaw li may tàggatoo mooy li ma doon wax léegi dama ci insisté baax. wax euh, le président Macky Sall ñu ngi koy ñaan li laay war soli na dimbale askan wi li mu leen dimbale mooy. Hmm. yenn sëriñ si nekk ci mbir yi di yàqal nit ñi wax dëgg yàlla nañ arrêté loolu nañ arrêté loolu affaire bi nañ ko organiser nañ ko defar bu ko defee Sénégal yëpp mën nañ cee jariñu te kenn du ci am benn problème waaye koo xamante ni xamul dara xamul xaatim bu dëng xamul xaatim bu jub xamul xaatim bu bon xamul xaatim bu baax. ñëw dugg ci mbir yi nit ñëw wax la jafe-jafeem nga. nit bu dee bidiw la nga jox ko suuf. nit bu dee suuf la nga jox ko bidiw. nit bu dee ndox la nga jox ko safara. yaa ngi koy lor affaire bi du noonu affaire dafa am yoon. sëriñ si ñu bëgg ñu bëgg liggéey ci liggéey bi nañ dem jàngi. ku mënoo dimbale benn mi def ci kaw suuf. ak yar bi ak yar. ndax dafa benn benn waay bu soxla woon bu soxla woon ko ko giri teg ko ci yoonu yàlla. mu ñëw ànd ak sëriñam. ñu jug jëm jumaa ji sëñ bi dem ba jublu jumaa ji rek xartan bi ko tafli waaju tourné ne ko àllal ah, mun ah kii mënta wat mënta wattu adabu yàlla yi ku mënta wattu adabu yàlla du la jox sama bopp kon nit il faut mu xam ki muy jëflante kan la nit koo xamante ni amul benn adab amul benn yar amul benn teggin xamul nu muy toogee nga ñëw ne ko dama am soxla ci yàlla yaakaar ko ci moom doo egg fen ngay sa bopp rek mais jaaro yi tamit hmm? nga tëjee ko rek jaaro yi sa jaaro yi daal rëmbi na àdduna koo wax mu ne jaara Serigne Assane Cissé Thiam yi jaaro yi lu mu doon jaaro lan la. waaw jaaro moom jaaro la ci jaaro yi wax jaaro yu bëri na nit ñi ku nekkee nga wax ku nekk nga wax mais ñi mos sama jaaro ñi mos sama jaaro. Hmm. xam ne sama jaaro yi bokkut ak yeneen jaaro yi.